jërë ngeen jëf mbokk yi boo ko mbokk téléspectateur wasaare TV wasaare lamb bu ngeen gisee fii fii ñu nekk ni xam ne fii mooy Colobane bu ñu ne Colobane nag gars yi fi daan seen doole ñi nga xam ne dañuy ñëw bu liggéey suñu seet si benn ndaanaan benn xale xale bawol boo xamante ni dafa mën a bëre jóge ci victoire fan yi nag kenn gisu ko kenn xamu ci lu mu nekk ñu woo leen ko dëgtal wan leen ci lu mu jógee wan leen ci lu muy dox fan yi yëpp kenn mënu koo am nag mu ñëw ne wasaare lamb la bëgg a génnee wax li mu bëgg a def ak fi mu bëgg a jëm yëpp kon aadama ñoo topp moo ñu dem seeti Wouly 2. char naa sama gars yi. yaa ngi ci jàmm. champion. mbër. naa la waay. yaa ngi ci jàmm. jafe nga de. ci jàmm. gerte nuyu naa la. yaa ngi nuyu naa la. waaw mais salaamaaleykum use maa lay fay. yaa ngi ci jàmm ñu gëj laa gis Wouly fu mu nekkoon. waaw waaw ma sant yàlla julli ci yonent bi sant sama ñaari waajur waaw di xam nga sant monde entier di sant di nuyu képp ku may bëggee xam na gars yi namoon nañ ma waaye maa leen raw waaw man di nuyu borom place bi ma ñëw fii Ndiogu Afia sama xarit bi nga xam ne tey maa ngi place fi laa defee émission bi nuyu gars yi fi toog yëpp ñoom Papine xam nga sama xarit xam ne dafa yàgg depuis Sandaga la nuyu ay grand frère yëpp ñoom Mor Lamine Mor Dioufine Baba Karine Moussa boo yëpp ma li may dinaa juum vraiment famille boobu yëpp maa leen nuyu di leen waaw bu loolu weesoo maa ngi nuyu waa Canada ga ma nekkoon fa ma jógee waa Montréal hmm? du nuyu waa États-Unis waa 106 ma limee dinaa jum vraiment di nuyu waa Canada Cheikh sama xarit Cheikh waaw di nuyu Bilal di nuyu soxna mama vraiment di nuyu ñoom gars yëpp ma limee dinaa jum waa Canada daal ay Modou yi vraiment di siyaar waa Canada yëpp dem naa fa liggéey naa li mu war a liggéey ñëwaat naa. waaw bi arrivé bëgg combat instant yi daal incha allah. balaa ñuy yegg si ci liggéey beek yooyu kan mooy Wouly 2. waaw Wouly 2 mu ngi nekk benn xale bu yaroo reefan yaroo reefan màgge reefan waaw ñëw dakaar di daan dooleem. waaw nekkoon benn marché ambulant di di liggéey waaw vraiment di liggéey di bëre di mbapat waaw di ne pënt door sama waar waaw bu ma liggéeyee bu ngoon jot ma wàcc dem géej dem contact yi di entraîné vraiment loolu moo ci làmb daal vraiment làmb ji fan nga ko doore bawol nga ko doore wala fii Dakar. non làmb ji moom maa ko doore a bëree yi mbapat di mbapat daal di dem fu nuy mbapat waaw di nuyu à passage Cheikh Anta sama grand frère xam na ginnaaw yàlla lépp moom la rek moo doon jox xaalis mbapat amu na ma demal bëri ji mbapat ma xam boobu xam nga yoruma dara waaw di ko sant di ko gërëm vraiment moom moom rek laa mos a am benn staff boo xam benn ci moom laay am problème jubal ci moom ne ko dama war dem bëri mu yëkkati xaay jox ma ne ma demal ma demee fu ma toll may woo mbar foo toll qualifié nga mbaa jël nga dama xam ne dama lijjanti ba nii lu ma am ci làmb ginnaaw yàlla Cheikh Diouf la di nuyu sama grand Aliou ak Aliou sama grand xam ne moo ma teg loxo Aliou mu ngi Italie ñëw nekk bàyyi moo ma teg loxo wax dëgg xam nga resal ma sama lépp dakaar lu ma bu ma bu ma fu ma ak ci làmb itam moom la parce que moo ma resal lépp moom ma tam moom moo yor wàllum financement moo ko yoroon ci man nekk Italie ne ma na mu ma dara ndax moom wax dëgg naa si la moo taxoon vraiment daaw ma am stress pour entraînement parce que dama doon entraînement heure bu ne du ma liggéey dépasse ma ma ko yoral yoral ma sama fi ma dëkk kon nag kooku foog ama fayam sama sama grand Aliou Italie waaw yeah loolu demee. ban moment nga xalaat ne war naa mën a ñëw dakaar pour bëre da nga dem ba jeexal waa waa waa yépp yëpp wala nu mu demee lan moo tax nga def choix bi ne damay ñëw Dakar bëri si. non sama dikk dakaar bëri si maam jël moon décision pour ñëw ñëw ne damay nekk nekk mbër mbër gi damaa dab mais nag ñun moom Bawol lañ ko dooree. mais bi ñëwee dakaar jël moo disoon ak mbër. lan moo la fi andi woon bi nga ñëw Dakar. liggéey sama mag ja jaay ambulant la woon doon liggéey ma nekk ci moom di liggéey ma nekk ci moom di dóor waar di entraîné far maanaam bëre bi bëre bi ne ci man. parce que ñëw Dakar commencé di liggéey. di liggéey jékki-jékki gis mbër sa xel delluwaat ci làmb ji wala. non man man mosuma bëgg a nekk mbër barke alxuraanu karim. lu dox loolu. bëgguma daa métti daa doon lal sama taabal di jaay gars yi dem entraînement <laughs> waaw mën naa limal ay mbër ñoom njaaxumin ñoom boobu ñu ñoom dañ doon jaay ay ñoom sayeren gars yooyu boobu ñoo ñu ñu ngi jaay dem géej di entraîné ji chaque quatre heures maanaam est ñuy wër nañu bàyyi seen bagage yi dem entraînement. xalaatoo woon loolu moom xalaatu ma woon ko sam boobu xaalis rek boobu man jaay rek sam commerçant day bokk xaalis boobu man damay lal sama taabal man a cinq heures xalaatuma bay saa bagage dem di dem ay géej di entraîné ji xalaatuma ko yàlla bi ma dugal nag man xaw ma ko sax li ma ci dugal xaw ma ko wóor na yàlla laa waxal xaw ma ko pare moon pour nekk mbër billaay wallaay mais mënoon maa bëre mbapat naa dëkk ba li ma jugee damay tardé dafa métti parce que da ngay xel bay say bagage dem entraîné ji. waaw day yàq sab liggéey. moment bi ban moment nga toog ne xaaral ma bàyyi sama bagage dem entraîné ji. voilà bonne maa ma toog maa ma toog boobu ah, dama toog di bëree commencé bëree ay petit combat Dakar di daan di bër gars yi di la commencé may wéccet bool bool commencé la xam nga di la jàppale la may wéccet. dañoo mën a sot. waaw di la may xaalis léegi nag yow may googu la tam di la ko may di tax day dem mooy yaafu soo ko liggéey. parce que boo génnee sam xarit may la junne nga dem sa kër tëdd looy wutee ca marché ba. voilà loolu tax nag man man ma dem ba taabal ji daanu ma commencé ma jaaytee di lekk dootuma jënti bagage <laughs> waaw. na dem taabal boo taabal ji yarax gars yi maanaam booy fu ñuy jaarale sama affaire nekk tamit maa koy lekk wóor na yàlla ma dem ba taabal ji yarax daanu ma mujj nag ban man xaamal gëm toog nag gëm yàlla nag bay nag parce que taabal ji jeex na lekk naa lépp jënd sama bagage te bu ma génnee gars yi jàpp ci añ yeeg yooyu dina sama bas vraiment grande mosquée fa la boobu waaw bu ma jógee entraînement place am ñëw añ ba suur waaye ñoom Moussa Yène gars yi foofu man dama dama amoon ay copain commerçant xam nga ma liggéeyu tam boo amee ay xarit commerçant sa seen place nga xam ne añee fa laa ñëw toog añ jot ma añ ba suur naan sama ndox dem sama kër dem nelaw ngoon jot ma dem entraînement. mais moment bi table bi daanoo. waaw ban combat ngi ci njëkk am moment boobu noonu. non ba taabal ji <laughs> ma man ban combat waaye mooy mooy mooy temps yi jëm ci kaw ma commencé benn ay spécial non damaa xam ne bu taawu daanoo nga war a concentré wu ci làmb yaakaar naa boo ñëwee sa premier combat di ci teg sa bakkan ban combat la boo ko fàttali ko. non maag kii la woon maag yaakaar naa Balla Gaye Junior bu Lamsar yaakaar naa Balla ci laa nag taabal yi commencé daanu waaw man nag làmb ji nag naa ñàkk naa ñàkk naa ñàkk naa ponti ba ñàkk naa place ba fi nii kër bu ma kër bu ma xulee nag bu daanu làmb bu daanu moom li ma yàqu ma commencé gal sama bakkan nag ci làmb nag xam ne njaay moom mënatuma

mu ne ma nag mu ne ma nag bëreel man a nag nag garaawul waaw fii nag loolu yàlla neen la quoi ma gàll sama bakkan xam naa mun naa bëri am ma ma teg ko ci nag teg ko ci nag di bëri Cheikh Anta topp sama ginnaaw di ma jàppale moom itam moom itam bawul quoi xam nga gën ma may courage di ma ak John Bada John di di ma wutali combat rek tegi teg ja di ma wutali combat may bëri rek xam nga te itam macha may bëri nag di daan nag waaw war vraiment di daan gars yi bëgg ma waaw loolu moom ma gën a poussé ci ci mais itam rëccu ma ko itam vraiment rëccu ko parce que lamb lamb itam maa bëggoon dem Italie waaye yàlla suñu borom suturaal na ma dem naa ci dem naa ci fu raw foofu te mosuma koo foog sama àdduna vraiment maa ngi sant bu wér tam parce que itam moo tax yàlla lu mu la xañ rek am na lu mu la dencal lu ko parce que daana wax naa bu ma yàlla na ma yàlla musal ci mbër laa doon wax bëgguma koo nekk mais yàlla muñ na may loo xam te ni man fooguma woon ko sama àdduna vraiment jomb ma nag mais fooguma woon ko yaa Kewel lu ngeen bokk Kewel benn papa buñ jóor ak moom ku a bëree Kewel maa ko njëkk a bëree Dakar mais ñoo même jour bu ñu bëree wandoo dafa bëree tey bëri dóor. ñoo ko jëkk ñoo bokk daa bëri tey daan ba set mu bëri. tabaski dëkk ba tuubaatul. noo def suba. moom moo bëri ji dem daan. tuubaatul lamb dóor c'est la première fois ñu takk ngeen ñu ñaan yëpp bëri dóor dem bëri ji. waaw maa moo ji a bëri dem daan man ñu ne suba laa war a bëri man ma pare tam man ma takk dem bëri ji dem daan man tam. mais loolu méttiwul yow ak moom ngeen bokk pap bokk benn kër di bëyandoo loolu du métti. non méttiwul parce que itam xam nga parce que itam ñun suñu mag ay mbër la ñoon suñuy grand frère ay mbër la suñu grand jàmm son fii la doon na fi nit mu daan estat estat ak a bëri daal dañoo doon affaire yi quoi loolu tiituñu loolu quoi ñun vraiment daf bokk ci ñun. seetlu benn moment nga ñëw jël xale yi gën a të muy Koña bébé Modlo ñoo ñëpp nga boole leen bë bërandoog ñoom la ma wooloon choix boobu nga xool ñi nga xam te ñoo fi gën a ës moment boobu nga nangu bëre ak ñoom non boobu sama gars yi ñoo ma leen jox rek boobu man xam nga man essane iloor gumbalaa yoroon rek Cheikh Anta ak John ñoo mën a jëlal kii jëlal kee te man kooñaa te ñoom ñëpp ku ma ci jël nag maa la naan jox la ma diw mais kenn rek laa jël te laaju ma ko laaju ma ko béy móodloo lañu ma jox ca lam laa gisee maa leen lan ma waral su combat nañ taxaw ci combat yaag béy móodloo kenn comprendre wu leader jour boobu waaw woon si man fii laa leen entraîné ci Colobane Colobane gi ma nekk saalu Maxi. Maxi bu ma déggee na xam li may wax. boobu Maxi moo doon yóbbu monument maa renaissance di ma dawloo sax fajar ay grandin te boobu mosumay grandin maag caat caat booy bambara. boobu fii laa leen saalu Maxi bi fii Maxi moo yàqoon sama ndig li pour la mun ndig laa amoon boobu wóor na rasulullahi. combat boobu kenn mënu cee xàmmee wuli de. problème mu ndig laa amoon boobu problème mu ndig billaay walaay taalaay. lam lu tax annulé woo lamb ji boobu laa xam nga dib doof rek xam nga yaa ma gën a xam yor xelu xale keneen bi may takk ngem damaa ngóolu ci kaw kéwél nii sëg mënumaa siggi billaay walaay taalaay mais ñi des ñëpp daan ma moom dara dalu ma mos koñaa bi ma noonu aw ma benn po aw ma benn blessure mais mais ma bébé loo wallaahi blessure laa bële bëre. bu nekkoon woon xel. lamb ju rëy waa ji ma raw ko ci lamb pare may ko chance mu daan ma mu sama première défaite moo ma ko jox mosuma daanu ma daanu ci lamb jooju nag mu métti ma lool. mais nag man xam c'est la vie mais ku ma daan nag da ngay gën dëkk bi de ku ma daan bay lamb. waaw lu tax wax koy dégg dégg naa ko nga ko ku ma daan bay lamb. man ku ma daan bay lamb. Bour Sine bul saboté Bour Sine bul yàq sama émission. di ko encouragé mu ngi di doog a ñëw xaw ma looy wut fii moom mu ngi bëri daal lu muy wut si. maa ngi koy nuyu. boo daal looy wut fii maa ngi sañse ba rafet yow boo bëri daal looy dox non non yaa ngi dégg lu muy wut fii. moo ma jaaxal <laughs> kaay fii waaye ma mbër même ba félicitation ba. jaajëf waay même ba décourage ba jaajëf ngi naa la. siyaar naa yaa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm bu wér. gis la nga bëri dimanche lamb ju neex sauvé bés bu mag tamit. dëgg la dëggantaan noonu lay demee quoi. gis la nga bëri sa diggante yow ak Eumeu Sène junior ngeen bëri bëri bu yàgg komba bu metti waaw lu waa lu waral combat bi yàgg appi xeex bi metti non dañu liggéey ànd ak sunuy mbokk sunuy gaay sunuy copain ñoom wuli de gaay yëpp xam nga rek lam ji noonu la mën a demee quoi lu mënul ñàkk nag faw mu am te liggéey nañu lu ñu may ndam xëj na yàlla moo dogalul ñu am ndam nag. mais mais est-ce que adversaire bi diisul ci yow. man kenn diisul si man ndam moo amul rek mais boo gisee maa bëre bëre bi xeex xeex bi lépp yàlla mooy dogale noonu yàlla mi ko jox victoire ñu ngi koy ñaanal jig ko ñaanal ñu ñu am leneen ko lan ngay wax say supporter ak lu nekk sa kanam. ñu bañ a découragé xam ne làmb la def naa fi lu ne daan naa fi champion bu ne bu ma doonoon cuuni du ñu ma booleek moom boobu ma si bés yu mag yee waaw loolu la mais amul découragé. baax na Wassare Lamb dina ñëw seet si la. amul problème maa ngi Medina. bu neex sama émission xaar ba ne ma ñëw da ngay xaar ñu gis nga jógee nga jóge nga jógee ci bébé Modou Lo jógee ci nga daal ci kan. su bébé Modou ma jóge kan laa jëloon waaye ma jógee defet boobu noonu boo jinne laaj jël boo jinne waaw booy jinne laa jëloon waaw. ma dóor ko mu daanu waaw. waaw. ñu nga jëlaat euh, kii booy dëkk Pikine Koña. waaw. lamb yu métti. yaa moom. waaw billaahi waaw xam nga Koña ba ma ko jël dama naago woon. billaahi walaay koo jël man maa man maa. man koo gis ak tuutiwaay beeg yooyu. laaj maa leen jox leen ma mbër mu xees moom wala boobu xaw boobu xaw ko sax wóor na yàlla. lan moo ci neexoon. neex ma rek bëggoon ko corriger rek parce que gisoon naa moom fit di xeex ak gars

gars yi moom dañuy defante moom dafa bëri xeexat nag parce que génération bi moom sa waay bool bool yi génération bii nii nga gis nii. ba pare dama gis bool bool yi fan yi dafa mel nii ba ci tafaatin. ko ñaal yi. ñoo xam de tafaatin. tafaatin lan la ko mbër di moytu doo bàyyi li nga wax. xam fi mu nii wuli dëng ci ginnaawam maanaam exemple tafa bu moom mosuma am accès ci moom pour ma amee combat tafa man maay taxaw laa fu góos ba maa koy seere wóor na alxuraanu karim lu mu. waaw mais mbëy mbëy kan laa dem dëkk na ko fii. Reug Reug Tapha Tine du ma romb nañoo bëreeg man rek maa victoire fuuf Reug Reug du dara nañoo nañoo bëreeg man lu muy lay Tapha du la jël. mais lu tax ma jël. non dalay dalay dalay du dara. états lay dem États-Unis lay dem day liggéey may liggéey bu ma jëlee ma dem États-Unis liggéey ut doole maa ko dàq bëri maa ëpp fi dàq ko xeex du dara jàpp maa Njaay Malik magam ngor du ko daan ko xam naa ñoom waa papakan ñooñu leen yab waa kan kan ñooñu xam naa leen yab na ma jël ñu bëre Tapha Tine day moromam. ñi ma ngaa rasulullahi bu ñu ma jël ko. muy fu moo ngi lay seetaan moom ñi muy laaj. ñi muy laaj rek rek ñi muy laaj ñooñu kenn raw ay ay moo daan tey lay bëgg a bëreel te ñooñu yëpp ñooñu ñooñu laa soxla moo daan raw ma ci la may saa yi moo daan du dara te rek mu moo daan man bu jees. rëg rëg moom lay li nga daan ambulance a tax. rëg rëg moo daan lay laaj te nañu ñu bëri ma ak moom ku boog moo war ma mën a bañ rëg rëg du cent franc du dara bu ñu noonu avance bi nga yóbbaale. yonent bi kon ko fi muy rot laay rote day jël avion ma jël avion mu cëpp ma cëpp mu liggéey ma liggéey ah ëppale ma foofu dara. mu lu dee da ngaa ñam États-Unis bi dem ñëw moo tax fi mu toll faalatoo kenn. sa waay rek du dërëm rek day dem foofu xam naa fi mu yokk doole xam naa lépp léegi kooku la ragal ci moom. day yokk doole dem moo day foofu ndax gars yi foofu xam nga liggéey lu métti te foofu liggéey fa am liggéey te dina lekk ba suur rapaay lekk ba suur moo fa am dañu ñëw nëpp gars yi dox seen maay bu ma jëlee ma corrigé ko du dara. kañ nga non ah non Canada laa demoon bi yoon. bi yoon dama off États-Unis quoi yee. noonu la dem États-Unis nga njuuy leen. off leen dem feneen def jàngi leneen moo tax réer ba ma joxee ma corrigé ko du dara. loo doon foofu Canada. dama doon def samay entraînement du ma ko wax samay entraînement yu métti laa doon def barke alxuraanu karim. kon demoo fa woon pour Modou Modou wala dem foofu pour noonu. du ma ñëwaat kon du ma dikkaat dama dem pour liggéey entraînement lu metti sama gars yi ma lépp seexuma ah gars yi foofu man namu ma dara tous namu ma ko entraînement nelaw. ma ñëw fii booy di ma def nii di ma di ma gauche droite nañ ma jël ma won la ma liggéey. kan moo lay gauche droite wuli de. mooy mbër yi rek fi mu ne maa ngi taxaw di lebal fii un mois weer def naa ko Sénégal boobu lay ñu may woo di waxale man xam nga di ma wax ay mbër yoo xam ne nii gaañ sama ñu ma war a bëre di ma daw comme ku mel ni Moussa di ma daw Garga Mbossé Garga Mbossé moom bu ñëwee ma ñu ma bëre moom Garga Mbossé moom war a ma mën a jël xam nga moo daan di ma daw moo daan te ndaamaas Thiessos moo war yow ñu bëri ñu bëri ñaar moo daan ta mais yéen booy la moo tax fan yi ngeen ciblé Modou Anta. ay Diène Kairé ah Coence. moo daan man rek la war a bëri ci booy nag parce que damaa dugg Thiès tas fa daan fa saafi dóor ko sama dëkk reefan dóor ko mu daanu saafi laa fa jël xam nga saafi saafi jéem bu Thiès saafi ñoo reefan ma ma ca laa ca reefan ma bëri fa moom grand combat ko mu daanu keroog keroog ambulance moo woon ba ma naan ma yow ambulance moo daan daandi ko ba mor jaandi ko ma duma ko daan ko fii stade Iba Mar Diop bi merci de l'année. ñu taxaw ci loolu bi nga jëlee bi nga jëlee ambulance dégg nga coow li ci am ambulance moo mën moo mën wulli ambulance ko mën wulli dafa tapet wulli nang est-ce yaa ngi doon déglu coow yooyu. Eh, man dégg naa loolu man tapet newul ci man man tapet. la moo tax gars yi di wax loolu. damaa xam neex leen man mosuma bëre daw. damay bëri xeex man dama. est-ce que nekkul est-ce nga bëre ñoom ñoom ñoom ñoom bébé Modou Lo ñoom ñoom kii moo tax wax loolu. mais ñaata combat laa bëre man maa ci ay 18 combats te ñii damaa doo ñu daanu man damay taxaw di xeex di nàcc ab tapet du nàcc man damay dem ardo tapet du taxaw jël ay coups de man barke yonent bi xeexam a gën a kaay lekk barke alaaji fallu man ma bëriwu sax te dóoruñu ma amal amal ma bokk bi ñëw ci làmb ji jour boobu yow ak ambulance nga ñëw ah. ambulance ëppale état ñëpp ñëpp ñëpp jox ko favori man xam naa bopp man am ambulance kuy ànd ak Bombardier nag nan laay nan laay nan laay tolloog moom musculation kuy ànd ak Bombardier musculation Tafaatine yaa ànd. Tafaatine laa ànd mais Tafa ba ma rek da gis dàq dàq dàq ma mu ni mu toll. man dama ragal loolu man noo mën toll man xam naa soo bopp keroog ba Mbodj Diop ànd ci lañu mais dama kii dama koy weer de un ma ëpp muscle ni mais ëpp ma doole barke alxuraanu naa ma doole billaay walaay taalaay te man gëmoon naa fekk suba du ma daan. bi ngeen ñëwee stade ngeen bàkku. waaw def njaab juub ñëw affaire yi demee noonu taxaw. waaw mu sumeeku nga sumeeku. noonu sumeekoo samay gaar yi ma ne mbër kii du dara xot la. te loolu laa gëm itam man. loolu la gars yi wax dañu mën du dërëm day soob forme bee rafet nekk du góor góor boo ko bu ngeen ko ëppee def lu ko neexul te man moom mënu ma def lu ma neexul bëre ba la fa def mu dindi ma def mu dindi te maa koy manipuler déggoo ma de. daan ko jëlu bu kenn daanu ko fi jëlu bu mel noonu. am ci àdduna même mbër daanu ko sa ngay wax amagul ci arène bi ngay wax nga lan la ma ko daan mbër daanu ko mbër bala ngay doo ko fi xaw a def coob boobu te maa ko le maa daxle bala waaw maa ngi koy nuyu passage champion bu mag bi. Balla nuyu nañ la bu baax. voilà nga jógee ci loolu. Ah. ma dégg sa diggante yow ak Quench. waaw maa Quench day combat. temps maa ngi Kër Ndiaye laqatu liggéey. dégg naa démb toj ngeen toj ngeen naa fa di nuyu mbay sama doomu ndey maa Kër Ndiaye loo sama gàlle di nuyu mbay bu baax waaw di nuyu sama soxna à passage maa ngi Kër Ndiaye loo laqatu. dem mais sa diggante yaa Quench sa diggante yaa Quench bu ñu la àndaloon avance Quench. moom moo ko tere neex depuis depuis yàgg na ñu ngi dox suñu combat muy daw Maxime Bergan di ko yàq mais làmb ji toll na fa am benn fi nii ñun ñooy mayante sens bu ñu bëriwul suñu biir du ñu bëri. yéen a a sauver tamit fi làmb toll. saa man Quench mënu maa bañ man mënu ma ko bañ dañoo war a bëri arène nationale sauver làmb ji ñun génération boobu ñun bëri wax soxla soxla làmb ji su si pare pour Quench parce que sama adversaire la potentiel bu jaadu rawuma rawuma ko nañ ñu fay ñu bëri man pare naa moom itam pare na. dama leen c'est pas su ma ci dugalee jën kay nag. na ñëw mu ci biir mu na ñëw. ku ci ku ci ñëw baax na. je pour ñoom ñëpp barke alxuraan ma corrigé leen. billaay walaay ku ñëw ma daan la. damaa damaa tasante yow stade. Garga Mbossé daan Moussa Ndoye. nga wàcc ci bi. kii laa bëgg a bëreel Moussa Ndoye. Moussa waaw yaa ma gis. maa ngi lay gis Moussa Ndoye moomu. jël ci defet la ne te dama koy dimbali sax moom parce que man maa gën a xew Moussa Ndoye day xeex de. non Moussa Ndoye du dama jël ma daxal fi mu ceeb bi jën ma ne ma eh, léegi ceeb bi moo. baatu sa waa sa gars yi nekk fi moo tax ngay laaj mbëri. la waxtaan Moussa Ndoye ma daxal ceebu jën moo moo danta ñoo ma daxal ceebu jën mais ma la mën a am am yaasa yi am yaasa yi suppu rek booy ndaw ndawaan garaawut hmm. ñoo xamaa bu ñëwut ma jël ma jël ma jël ma jël saay morom rek na ñoo ñoo rek man yee ñëw ñu mayante xaalis noo gisee noo gisee noo gisee làmb ji amoon ko stade stade euh, arène nationale diggante euh, ñàkk jaayo ñu Alioune Seye 2 noo gisee làmb ji li ci am. waa làmb ji li ci am neexul kenn vraiment di ñaaxaat ñeen ak mbëri vraiment ñun mbëri suñu biir man personnellement bu doo man a li ma sama xalaat bu gàtt bu doo maay Alioune dëggoo ma de dëgg la mbër bu paree ko ma bu ci diggeew beneen nit lay nekk dina ko du nekkati mbër ma nga xamoon day xabtalu dootu nekkati dootu nekk maanaam fekk abit noor piip mooy loolu loo ko def rek pour moom da nga ko yàqal. dëggoo ma de Alioune bu ma la may moom ma dee ba jàpp booy bi bañ arrêté laa koy dóor bay ko. mais est-ce na koo dóor sax. xam ah kay parce que wala non moom war na ko dóor war war ko booy bi war ko tuuree galaaj du yoon teg ko fen moo tooñ booy bi. cox ko moom na ko na ko ñu jëriñu tuuree galaaj garaawul bu boobaa mu kalaame ko arbitre bi après ñax jëriñu nañ dag xaalisam jox ko avertissement mais booyam bi waru ko tuur galaaj teg ko fen di yàq lam loolu violence au la baaxul yaa léegi nag Alioune Seye lan war defa ah, dàq booy bi tuuti toj nopp bi mbéj ko bàyyi ku mu dem mais nañoo ko ne na ma mais bu fa di xeex mel ni ku du fay moom booy bi ñu leen moom ku yi mu dóor booy bi ñax ji la ko war a dóor mer mer na booy bi kay na xaa boo am suul mu war ko ñax jëriñu mais bu mu topp booy bi poñe ko rek ne du ko bay yàq lam ji tam man loolu laa ci am lu ma wax loolu moom bu doo mën a personnellement damay téye booy bi mbéj ko bàyyi ko mu dem yee wala noonu ma yow yaay man lii laa gis nag bu dama na billaahi du ko topp di dóor mel ni ku nu fay ma ñax jëriñ ñoo am combat damay dóor booy bi benn arrêt laa koy dóor bàyyi ko ñëw taxaw ko concentré som bopp ñax jëriñ boo bi suulee moo ko ma koy won bu dee maa ko mën ma defar ma defaral ko. wuli noo bi fi mu toll ak fi làmb fi làmb tollu moment bi lan moo ko mën a sauver pour l'instant. non Modou Lo Ama Baldé ñu ngi ñaan lit ko laay yal na ko yàlla sunu borom tegil nattu bi vraiment lit moom produit produit wala boo xamante ni la war ñu ko ñàkk ci àdduna ñu ngi ko ñaanal yàlla lit ni ko laay yàlla tegal ko suñu kanam xam nga bu mu ko na liggéeyam vraiment parce que lam instant soxla na ko mel ni lit ni ko laay parce que moom fi boo bëggee dëgg-dëgg na waa trop gaynde sama kanam gaa dégg lamb dafa daanu non doy na doy na waar billaay walaay taalaay xam nga man dama doon gaynde rek ne kon ba léegi man du nga ma gisati fii <laughs> dafa métti ñëw Sénégal sa waay di dépasse yu lekk di naan sa waay avance gënul nga yor sa bopp yor soxna yor say famille dafa métti ñu topp sa yow ak ñu topp sa ginnaaw xam nga sax su ngay dépassé wu gars yi mel xaay bi te gisoo benn avance dafa métti te amoo beneen métti bu dul làmb te làmb jaa ngi nii teg tekaral gars ah. doy na waar est ci yéen yéenay laaj kese bu bari. wala yéenay laaj ñi nga xamante ne waru leen bëree ak ñoom. gaynde man laajuma ku ma war a bëreel déggoo man yow ñi ma fi lim ñëpp sama adversaire lañu man du ma genre mbër yooyu parce que loolu ñun ñoo ko def ñu bëggu la bëri man dama bëgg a bëri parce que man dama bokk ci lam dama am ay supporters yoo xam maa leen di bay saat te damay def lu neex damaa da yóbbu Bour Sine Kira fecc benn paa ne ma tepp ne ma sama doom sama doom champion nga ne man ansegula la waaye yaa may daaneel xam nga yooyu noonu boo amee ci lamb maa ngi koy fekkee njug mu sax mi waaw yaa ngi koy fekkee paa bi xëj ma sa kanam ne ma sama doom man ansegula la waaye sama doom yow dooy caaxaan da ngaa saf xorom mën a bëre xam nga da ngaa bokk ci lamb yooyu noonu bu la koy wax xam nga yow ñoo ñoo ñoo lay bay ci lamb xam nga Ama Baldé moo doon ñu ngi ñaan yàlla lamb jooju am xam nga ki le maire gañ nag mais lamb juy soowee lamb la ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mu am ci jàmm ak salaam gars yi Sénégal fekk ko ñu feete ko jam kilomètre gañ vraiment lam ju neex la moom ñu ngi ñaan yàlla boo Boy Niang waa ji taxaw bala Gaye waaw lam ju neex la itam vraiment yooyu lam dafa neex waaw maak Reug yooyu mu taxaw maak Reug Reug waaw moo ngi lay dégg lan nga gën a bëgg ci palaa lekk plat palaa bu naa ceebu jën bu weex de bu weex oh bëgg naa ko trop. waaw même suul ak bëgg. ceebu jën bu weex rek moomay rey ma ak maafe. waaw même maa fay tam mun naa ko añee reere ko ndëkkee ko. li nga wax maa la wax li du ma ko doyal. Canada fee daa ko doon togg 15 jours laa koy lekk maa ko toggal sama bopp. yaay toggal sa bopp maa ko doon togg 15 jours laa koy lekk. daanal bu ko kenn tuur bu gaa yi tuur man la bu ku tuur saa maaf di nga am problème. am nga waykat. am naa waykat waaw. man. <laughs> am naa woykat de. ah non kan mooy sa woykat. non man yow moom amoo benn de. waaw ma ñaar. man ñaar non xam man mën naa la rek. Ah. El Hadj Keita mooy sama woykat ak Assane Bongo. waaw. ñii moom sama woykat la ñoom El Hadj Keita ak Assane ak Waly. Waly moom dama koy ñoom ñëpp. non El Bongo ñoom moom samay ñoom ñoom samay frère la ñoo dëkk ñoo dëkk Médina Rue 25 seen kër laa ñoom Assane Assane moom del maa topp fu ne Assane Bongo mooy sama moom moom mooy sama préféré woykat sax ma neexee parce que moom moom laa mos a bëri mbapat mu topp ma di ma bongool ba ñu dóor ko fa nangu bongoom kooku mooy saa woykat Assane Assane bongo mooy saa woykat. bu weesoo bu weesoo làmb ji ngay def ban sport ngay euh, suivre. man damay suivre football waaw. kan mooy sa équipe. man man euh, Barcelone. Barcelone Barça mooy sama équipe. Barça temps dafa daa am. à part Barça Sadio Mané. Sadio Mané. waaw bëgg naa Sadio Mané moom. soo amoon looy tàggatoo looy wax. waaw di santaat yàlla. di nuyu sama yaay di nuyu sama mag comme nu ma la waxee Aliou Italie di nuyuwaat Ndiogu mi ma ñëw place sama xarit xam ne damay ñëw jël lu ma neex dem sama yoon. vraiment te moom laa ko def danoo yàgg depuis Sandaga la ñu yoroon place grand frère moo la ma andi ko fii mu ñëwaat fii Seere maa moom dara ñaawul nuyuwaat la ma magam bu baax Babacar comme ni ma ko waxee Mor Diouf vraiment nuyu Cheikh Anta sama grand mu nga ci bu benn saa di liggéey Cheikh. nuyu Fallou Ndiaye sama xarit promoteur sëñ Mor Ndiaye maa ngi koy di ko siyaare sama xarit ma demee États-Unis ginnaaw yàlla moo tax mu yóbbu mu dem ma dem États-Unis sëñ Mor maa ngi koy nuyu bu baax à leen wax ne leen mbërëng ñaan yàlla combat am nuyu waa Canada États-Unis waa 116 Baye Fall xam moo jiite foofu mafia bi 116 mooy wat foofu mooy wat gars yi foofu sénégalais yi foofu Baye Fall waa 116 ñu ngi maa leen nuyu bu baax di leen gërëm ma limee dinaa jum waaw maa ngi nuyu Arlem dem ba Canada dem ba Montréal fa ma nekkoon di nooyu Cheikh Xuma xam ne bi may ñëw gaañ dal maa dugal maag sama jabar dal bawul ba dal bawul di yére bawul dara di nooyu mama sama chérie boobu xam ne dafa mën joxe lekk mama lu mu waaw di ma ay maafa yu baax may lekk namu ma dara mbër kaay lekk la ma fa nekk Canada. jox lekk moom xam nga waa ku ñu jox lekk yaa ñu moom te mama moom xam nga dafa baax Bilal itam benn booy la gaañ bu fa nekk Canada ndeysaan ma sonal ko trop di ko teg lu métti di nuyu ñoom Cheikh Xuma ñoom euh, gars yi sama waa ji te ñu dëkkoon beneen néeg maa moom ñoom Cheikh Seck xam nga di nuyu Mansour Mansour ñoo xam nga dama ñëw mu dalal moom itam xam nga moo doon wat moom ab ma doon néegam di ma wat te sax guddi ma mbër kaay wat la. xam di ma wat Mansour maa ngi koy nuyu à passage sama xarit sonal naa ko trop Modou maa ngi lay nuyu di la siyaare waa Canada daal di nuyu waa Kër Sëñ Tuubaa gi ne Canada ñëpp waaw maa ngi nuyu waa Daara Sëñ Tuubaa bi ne Canada yëpp ñoom Baye faal bawu ma kenn ma limee dinaa juum xam naa da ngeen seen émission bi nag maa ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm vraiment jàppale ngeen ma Canada namu ma dara ndax yéen maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. mbokk yi nii la nii lay demee chaque jour tey ñoo ngi fii Colobane seet fi Wouly 2 xam mu wax li mu bëgg ci làmb ak li mu jot a jàll yëpp nii lañ koy defee maa ngi nuyu Thioune sama policier bi maa ngi ko nuyu bu baax a baax Zeyna Niass kontaan naa ci yow euh, Anta maa ngi lay nuyu bu baax a baax maa ngi nuyu gaa yëpp di leen waxaat di leen jox rendez beneen beneen émission ak Wassare Lamb Wassare TV jaajëf. waaw mais Pape Pape Pape Diba maa lay siyaare booy. ñu ngi lay bëggee mais Pape tey gars yi dañoo ñëwoon pour seet si ma. xam nga ah. di laaj man kan laa war a bëreel ci làmb daal. dëgg la maa loolu laaj te yow comme boo la jox ko ma jox ci ma lay jox. Ah, naa ne yaa Quench. combat bu neex la. gis naa ne rërëg mi fi nekk di wëyu wëyulu. nañ la ko jox ëpp la doole. gënu laa min ca kaw. nañ la ko jox nga defaral ko mu jeex. point loolu rek laay am lu may wax man. ooyee oh, Pape. yàgg rëg rëg lu neex la yàgg Quench lu neex la. Ah. loolu rafet na jaajëfate bëgg nañ la bëgg nañ la waaw mais gaynde gi. Eh. mais ci loolu gars yi. la tam ma ne na nga war mais tey yow ñëw sa place. gars yi seet si ma. Mhm. ma doon laaj te yow te ji làmb ji ba ma jox. koo may jox maam sama gars yi parce que instant yii jóge naa voyage ñëw naa am naa doole macha allah koo may jox fii. waaw waaw waaw parce que namoon na euh, suñ gars nga chaque jour fii ngay ne di ka foog de chaque jour boo amee combat dañ lay yàlla may la ndam parce que nit nga. instant nii gis na ne yaa ngi si état ñun ñëpp supporter suñ xel dal na. parce que tey ji sa combat ak Modou Anta combat la sa ak ki euh, ki dëkk Tëngéej. ama neex wala sa combat ama neex tamit combat la comme ni ko Paa waxee tamit ak sa combat Quench yooyu yëpp ay combat yu neex daan sa ñun ñun tamit bugg nañ promoteur yi ñëw wax la. parce que ñun soxla nañ sa nga xaftaan bi waaw waaw kontaan naa doom de kontaan naa kontaan naa kontaan naa <laughs> kontaan naa bro merci jaay merci aja bismillah ma jël bi waaw salaamaaleykum Ndiogu. waaw mais gaynde. Ndiogu affaire ci loolu ne. maa ngi ça va. naa lépp jàmm. mais gaynde tey gars yi ma seet si woon. Ah, di ma laaj di ma laaj tey jii maam kan mooy sama adversaire ci làmb kan laa war a mën ci gars yi daal fi mu ne waaw waaw mais doom day yow lamb xam nga ni mu demee liñ dëkk di wax yow maa yoo xam nga yàgg na du démb du day ñi nga xamante ni ñoom nga war a jël sa làmb ñan la jël nga bëre booy mënu leen jeexal koo may jox ba may jox koo may jox ku nekk am 18 combat kenn mënu bañ maanaam egg nga au sommet ah man bu ma sañoon Moussa Ndoye ñëw ngeen bëre ah Moussa Ndoye baax na kan ma neex baax na Kowens tamit baax na ak ma xool Sa baax na. Sa baax na Sa Thiès baax na. c'est bon moi c'est paré pour tout. neex na yow ma ma ma maa jaajëfal Ndiogo. leer na doom day. jaajëf nan dem. ewaay. Eh, bon. Eh. maa ngi seetlu grand moom. tey waa Wassare la ñoo ma seet si woon. man ñoom émission. ñu pare ne ma da nga jël micro bi laaj sa gars yi yow ñan ñu say adversaire ci làmb ma yow bu sa place si la tey la wax kan la war a bëreel grand koo may jox moo doon jox koo may jox instant yi koo may jox moo sama grand. ah sama grand sama xarit. waaw ñu bokk dëkk muy sama jantal grand. le grand yow koo may jox moo jox instant yi. ah moom sa combat moom instant yi ak Modou ànd combat la. waaw. ak kan. ak Modou ànd daal combat la quoi. waaw boobu yow suñ ko quoi yaa ngi Modou Anta daal combat la quoi waaw mais daa war a jël nag. Modou man pare naa moo ko tere ne est ce que pare Modou wallaahi ak kanaat Modou koo gisaat. non combat sama di sa digganteeg Modou Anta moom daa war a leer quoi incha allah daa war a leer. jërëjëf Modou kontaan naa grand frère ma rek kay. tey gars yi ma seet di ma laaj maanaam sama adversaire ci làmb ah. ma doon bëreet fii man la wuli deux champion. Ah, ah yow yaay wuli. waaw man maay wuli waaw léegi boo ma doon jox ci làmb ji mbër yi samay sama catégorie wala ñi ma mag koo may jox. man de man xam nga ku ma lay jox ama laa lay jox. ama balde ah. alma ama balde laa la waaw moom la. naa de mère ko naa ko ah, waaw yow xam naa la. billaahi yàlla na yàlla kontaan ci yow yàlla na yàlla def jàmm nice tey maa ngi fi Colobane waaw mais gaynde ndax mu gaynde nice mais gaynde waaw tey champion bu Lido moo leen seet woon den laaj maanaam tey ji sama adversaire ci lamb ji tey ji ma doon bëre ma yow tey ji koo jox ci sama adversaire ci lamb ji instant man man instant koo ma joxee fii nii yow jox VIP laa lay jox koo ma jox mën nga am Malick Niang dëgg la ak kan mën nga am Sita ak nga am Guy gi ak tamit Koensi. je suis pare xam naa pour ñoom ñëpp. waaw sa combat Koensi nag moom may gën a neex. moom moo ma daxal ceebu jën. waaw ah, man moom bu ma la doon jox tey Koensi laa lay jox. kontaan naa bu baax. ok la. Ah. waaw.